Mama Selbé Ndom mu nekk fii ci rédaction Senbuzz leneen luy actualité coowal Pawlish Mbaye ak benn entre guillemets benn sëriñ boo xam ni hmm. menacé na paolis directement ci télé bi ñu bari ci askan wi ku nekk am ci xalaat mais ci lim ko menacé moo dina takk na gàllaaj boo xam ne daal Pawlish Mbaye waru ko joxoñ parce que erreur la pour moom ci li nga nekk di ci yëngu ndax jàpp nga ne am na gàllaaj boo xam ne ku ko yor danger la ci nit ku mënti doon mu joxoñ la loolu nekkul débat bi de hmm. bi mooy dañoo hmm. invité Pawlish invité Serigne Ba mu ne waruñu woon invité Pawlish d'accord du loolu am mhm. li nga wax doo dem ba ca biir nga coppati ci te commencement bi nga koy waxee sëriñ ba bu mu xeeb Pawlish moom dañ ko invité rek waxta tànn kuñ koy invité du dëgg mhm. tey jii soo ma invité woon bu la neexee invité Pape Fall wala euh, fàtte naa tur bi kii mhm. Billy Billy Boy wala keneen ak keneen Hmm? yow yaa may invité bu la neexee boole ci am léegi bu la neexee boole ci bàyyi si kéem foofu la wax ci commencé hmm. Pawlish dafa sentir ne kii da koo offensé ak da koo xeeb moo tax Pawlish dal ci kawam. ok su nekkoon sëriñ bi nopp ne ne waru leen maa boole kii hmm. Pawlish du ko jéggi. d'accord mais la mu def ah wal man de su ma ne gàllaaj googu awuma ko te it doo ko takk. te Selbé Ndom du mu sax loolu nag. bu doon loolu ñu may saaga. d'accord sànq rek am na ku ma saaga. wax ma lu bon. Hmm? mais naqariwu ma parce que loola mu wax amut. man de téere boobu sama hmm. maam de doon na liggéey ba boo daanee la avion wallahi bu la joxee xalimaam bu bu jëlee xalimaam nga bind. Hmm. ne la demal taal ko nga taal ko ba mu mu tàkk nga sotti ci ndox dañ naan la loolu la yàlla dogal. mais gëwuma loolu man. d'accord ci nekk nag nga feem. boo xam ne xëy na noonu ngay doxalee. d'accord man gëwuma loolu. très bien alors gannaaw bi coow doxee seen diggante ñoom ñaar moom jàpp ne vraiment erreur la ci Pawlish Mbaye pour mu doxoon koog yooyu ba menacé na ko publiquement ci télé bi ndax kàddu yi mu yëkkati ak menaces yi nga xamee ni aussi jëmale na ko ci Pawlish Mbaye ak li ñu jot a waxante yëpp loo rafetlu la wala noo ko jàngatee. non rafetlu moo ko parce bu dee benn fan sax moo ko mag Pawlish hmm. a tey jii Pawlish bu deewee dañ naan moom la. Hmm. lu ko dal dañ naan moom moo ko def d'accord ma ci loolu parce que moom kilifa la. Hmm. kilifa la kilifa la encore moom mag Pawlish maanaam pour muy xool li muy def. buy liggéey na liggéey. Hmm. ah mën na li muy liggéey. na na liggéey mais Pawlish rakkam la wala mu wala ko doom. waaw man rafetlu ma ko daal menace yooyu mu ko def. ne ko doo joxoon na ci appal naa la. non bëgguma loolu bëgguma loolu parce que fii àdduna la ñu ñëpp ci yàlla lañu jóge ci yàlla la ñuy dellu mm-hmm. eh, innama amrullahi iza arada shay'an an mm-hmm. yaqul lahu kun fa yakun mm-hmm. eh, waxaat illa bi ma shaa d'accord illa bi ma shaa ci kàttanu yàlla ak bu neexee yàlla da ciy am solo eh, maa ngi koy ñaan nag xam naa ne moom mm, monsieur boobu mu wax ma lu ko neex mais maa ngi koy ñaan yooyu bu mu ko dalal ci ndax kilifa. Hmm. boo nee kilifa nga. yaa ngi joxe garab gii day faj nangam. garab gii day jox nangam. maanaam waroo toog ci plateau di xuloo. maa ngi koy ñaan nu mu tuddati sax. d'accord Ahmed Cissé. Ahmed Cissé man hmm. Selbé Ndom maa ngi lay ñaan bul xuloo ci plateau. liggéeyal rek. d'accord liggéeyal rek. incha allah ndax jàpp nga Pawlish nga jéggal ko. Hmm. parce que Pawlish sa rakk la. d'accord wala sa doom la. te kilifa day wone bon exemple. waaw maa ngi koy seetaan nag ci yu bëri loo xam ne mi ngi koy wax te waru koo wax. moom Ahmed Cissé waaw. parce que maa ngi dégg mu naan damay nàmp bu baax damay xaw ma lan ci xale yi bu baax. kon rafetlu kàddu yi. rafetlu ma ko kilifa la na sol garam bu tool mbaxanaam yooyu mu xool mu taxaw mu seet bul waxati loolu. dégg nga s'il te suma xarit nga suma frère nga. Mm-hmm. maa ngi lay ñaan ngi jëmmi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bul wax loolu. d'accord mm, ndax jàpp nga ni nit war na am gàllaaj wala gàllaaj yow xam ni yu am na gàllaaj yooyu am na xool nit ni ko fi ak ñetti fan wala juróom-ñaari fan bu ma neexee nga dee jàpp nga ni loolu gàllaaj bu illaa bi macha illaa bi bu neexee yàlla am na. illaa bi macha. maanaam. illaa laa la wax bi macha. déggoo illaa. Hmm. ñi seetaan ngay waxal du man de. ñii seetaan ngay waxal maman Selbé. <laughs> waaw léegi damaa nga tekkil ma illaa bi macha allah. waaw <laughs> ah, <laughs> xanaa day fekk mu neex suñu borom ndax con sekk woy na ko. Mm-hmm. yàlla ji bind ci fanweer rey ci fukk ak juróom. Mm-hmm. Euh, jamono yooyu dañ ko dañu ko paase léegi. waaw loolu man. Mm-hmm. Ah, na xam ne daal Pawlish mbay rakkam la. d'accord na xam ne Pawlish mën naa nekk mu nekk am nekk jarbaatam. moo mag Pawlish. super waaw mais day fekk yàlla yàlla ne waaw rek yàlla dogal ko man mii am na ku fi waxoon ne damay dee 2018. Hmm. ba ay nit ñëw di man dama leen illa bi macha allah. d'accord très bien. day fekk mu neex yàlla. am na solo Serigne <coughs> euh, Moustapha Sy ñëpp xam nañ sa diggante ak euh, ak moom ci gàmm gi am ay kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko polémique bu bari juddu ci ah, ñu bari aussi ci seen déggin rafetlu wuñu kàddu yooyu ndax commentaire yi nga xam ne ñenn ci askan wi ñu ngi doon def si jëm ju tedd ji ñoo ko jàngatee. xam am na jigéen bu wax lu ñaaw waaye loolu moom ci moom la ci moom la nekk moom mii xam ne dajjaal xaw ma lan euh, man dama ko sëriñ mu safaat si dama ko njëkkee ci Cheikh Ahmada Tijani bi ñëw def cortège am ànd ak ay militaire am jaar tapis rouge ñëw jox ma loxo am sel bendoom te woowu ko de moo ñëw nuyu si ma de moom capitaine Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mm-hmm. góor gu rafet googu te gàtt mm-hmm. moom ay militaire la am militaire yu sol turé tapé rouge la jàll moo tax ma ne Seydi Mouhamed fi Moustapha si mooy Cheikh Ahmad Tidiane yi man murit laa <laughs> maa ngi ci borom bu yëre bu weex bi rek mm-hmm. ilaa abat nag laa wax maanaam moom li liñ koy wax noonu nekkul ci moom man yàlla rek laa yaakaar mhm. yàlla rek laa yaakaar li ñuy wax lu ñaaw loolu yëpp nekkul sëñ Moustapha Sy su ma jógee ci Cheikh Ahmada Tidiane ñëw ci euh, euh, Ali Alhaaju malik si radiyallahu anhu mhm. dama feebar sama néeg boobu awma lu ma jënde kafe lu may togg añ lu mhm. laay ci bu sibburu bay bëgg dee li ma sibburoo Seydi Hadj Malick jaar nii ci fenêtre bi mel ni comme comme biddéew ok ñëw ne ma selbe sa feebar bi daan may bindal allah delloo ko ci allah mu dem rek sama portable sonné ma wuyu allo kooku ne ma selbe sa baat bi dafa kii de lan moo la dal ma dama xaw a sibbiru mu ne jëndal garabu nàngam di nga wér hmm. kon moom monsieur de malik Malick loolu mm. na ma. Mm. sëñ Babacar si ma gis asamaan moo jógele ci asamaan lañu la benn loxo génn. dindil ma mbaxana. Mm. sëñ Babacar si am dafa mel ni comme coton. sëñ Cheikh Tidiane ñëpp xam nañ ko. sëñ Moustapha Sy ñëw dama ko gis mu doon waliyu kaamil bi ñu naan dafa corona. dama tëdd ba guddi ma gis ko ci diggante asamaan ak suuf. billaahi may ma tuuti rek xam naa ne yàkkamti nga waaye mm. ñu ngi jéggul te gis nga gàmm googu ca bëccëg ba mm. cuub ba ma gisoon mu sol moom la sol man duma dem fu dara newul yàlla mu may loolu lu tax ma bëgg la nga jàng alquran mm. kee lu tax ma bëgg ko dafa am jom kii ba mu jàppee seen bés ba tey bayu man loolu lay téye nit am na droit indi capitaine ci wetam kon nañ bàyyi kii ki ñaanu leen saraxu leen demul seen kër ñi ko topp waxu leen kaay leen topp ma nañ bàyyi wax ci ñaaw ñu ngi koy wax. kenn ku ne daa war a tal sa bopp tal sa bàmmeel. liggéeyal sa àddina. Mm. ba yaakaar ne doo dee waaye defaral sa àllaaxira i'mal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abadan mm. waxaat da ciy am solo yéen nañu yàlla musal te changement war na am ndax sa kër tegal sa sa loxo fii mm-hmm. Mm-hmm. Allah lay abattre. ok xol hmm. Allah lay abattre. d'accord tànk booy dox. Allah. ok kon war nañu tal leneen. d'accord très bien xol hmm. dul. xool hmm. yàlla lay wax Allah. jërëjëf Allah Allah Allah Allah. booy dox sa tànk ndeyjoor Allah Allah. d'accord faaw ñu indiwaat esprit yi. te xam ne fii kenn dëkku fi ñu ñu gën ñoo fi woon. d'accord muy Serigne Touba Seydil Hadj Malick. ànd ñu. kon ñun duñ fi des. jërëjëf boo nekkee xale da ngay xool ni ngay mel. Mm. nga doon jàng xoolal ni nga mel xoolal boo màggatee xoolal boo gënee màggat da ngay dem. d'accord jërëjëf maman Selbé seen bés di la jaajëfal doon am mbégte saa su ne ci am ak yow jotaay. waaw di kontaan rek di wax seetkat baa ngi nii. Mm. seetkat bi yàlla bëggal boppam def ko seetkat te xalaatu ko woon. am dina ma may numéro yooyu mooy 77 744 39 18 77 737 67 46. di leen jox dig daje dinaa ubbiwaat buntu kër gi. incha ku ma soxla rek yëmbal route de boo fa taxawee boo nee kër Selbé jumaa Pulo Fuuta ni la indi. d'accord Fass Mbao boo fa taxawee na kër Selbé oto yi dinañ la indi. benn baraak marché benn baraak kër Selbé dinañ la indi. très bien fu waay nekk fu waay toll noo mënti mel dinaa la wax ni nga toll wax la ni nga mel bu ma la seetalee incha allahu rabbi doo wax déedéet. très bien ñu lay defal sarax da nga koy teg bët. gis ngeen fa ngeen ma fekk léegi. ma mm. doon am ñu ma defal sarax. Mm. man dóoruma très bien ànduma ak kuy dóor di ñaan na coupe du monde daa am koy gaaruwaale daa am koy gaaruwaale wala seetkat yëpp nañu àndandoo mànkoo jigéen ñi nañu àndandoo euh. <laughs> jigéen euh. mi ngi ñëw d'accord vraiment am ñaan leen coupe du monde Ndioppa Fall ñaan leen coupe du monde ñëw parce que maanaam lu yokkute rek yokkute rek te ñu bàyyi violence kii yeeg yooyu jërëjëf seen bés di ko jaajëf maa ngi alors jotaayu politique dinañ ko am après incha allah. seen bës di ko jaajëfal di leen jaajëfal ci andin bi di daje ci lu yàggul ak beneen invité fi amanillah